désordre familial base bi éducation la éducation bu réussir désordre du am ci famille e c'est cette famille là moom moo consister euh, société bi mooy dem ci biir euh, entreprise bi nga xam ne moom la père doon wax euh, ma ma am lu ma lu ma lu fàttali tuuti gis nga gis nga famille dafa am lu ko composé ñu ne la bàyyi dafay yiir nday day uuf xale dafay toog mag wër ko je rejoins Prosper ci li nga xamante ni moom la wax bu ñu bu ñu xoolee suñu mag ñu njëkk ñi yar bi ñu leen yar dañ leen yar dans l'extrême pauvreté kon su ma toogee ñu ni bàyyi bu amul alal yar doomam dana ko jafe damay laaj loolu ci ban Sénégal la mooy Sénégalu tey dama ne ab yar neex na ab yar yomb na ab yar baax na lool waaye fii mu toll ci jamono jii nu toll ak xew-xew bii nga xam ne am na yar fi doom ba ca gën dey gën caa neex gën caa gaaw mooy nga am ndax dafa am lu ñuy soxla te duñ ko. comme comme lan papa. maanaam am koom ci la. waaw mais yow yar nga say doom jiitoo ci plateau bi d'abord. waaye nag yàlla def na lanu daan soxla. Mm. ca yooyee jamono daan naa ko am. waaw donc yow yàlla ma ko doon jox. yor bi fan nga ko teg. ngeen fan yor yàlla fan la ko jaarale da ko jóge ci asamaan rek jox ko ko. waxuma yàlla ndax yàlla day tëj. Eh, waxtaan yàlla da nga fi wax léegi nii. non yàlla day tëj waxtaan wala dafa am beneen bi ñuy dégg. ab yar baax na lool yomb na lool mënees na ko lool. waaye dama ne ba gën mooy soo yoree ca la yar ba di gën a neex. bi yaakaar ne ndax soo yorut ñii nga yar dina nu soxla loo am dañ koy muñ dangay def si ñoom doylu muñ googu ci boppam soo ko dee seet quatre-vingt-quinze pour cent ci population bi ci ak njaboot ak jamono jii nu toll tembe tembe ñi ci xamul muñ kii na lool. fa ñu nekkoon fa la ba léegi nag. mu ñëw ngor euh, ak doylu. merci beaucoup xam nga xam lii rek désordre familial la ki fi mag fa nekkoon fa nekk ba léegi. mooy dox nit indi désordre ak ngor ak doylu lan moo taxoon lii di am nii di am tey ci réew mi. mooy discours bi ngay tenir. lu taxoon lii di am nii fii nu ci réew mi. ay ñu yor. waaw ñu yoroo yor ñoo xam ne. waaw waaye daal a teggin zéro. waaw c'est parce que yaa leen xamal ne leen seen alal mooy tax ñu yar. yow yaa leen juumloo. a teggin ba ba yaa ngi yey sa bopp te ju te yëgoo ko. merci xanaa soow mi la soow mi la xanaa xamoo soow day yóbbu xel. non non mais c'est dangereux. non yow mi yaa dangereux la. mais non dangereux. yow mi yaa non doo daaneel. doo daaneel da ngay ñëw toog. bàyyiwul ma ma daaneel. y' a Aminata Paye à gauche. y' a Sofia Diatta à droite. mais bàyyi leen ko mu daaneel. non non non jum jum te nag moom doo daaneel te lii du parolam. D'accord, merci. Allez-y, continuez. Non, pas merci. Non, je ne me retrouve plus. Je ne me retrouve plus. Voilà, merci. Tu ne peux pas te retrouver. C'est trop normal. Soow mi da nga teel a naan soow. Mais de toute façon, li may wax eggul. yaral sa doom si do yaral say doom si doylu yëkkati naa kenn xamul fu may. yaral say doom si doylu. waaw waaw mais eggalewu ma. eggalewu ma. ñu anduwee nañu anduwee ba pare bëgg ci dëgg-dëgg. gis nga éducation yi gën a réussir. ñu ngi ko def dans l'extrême pauvreté. mais nañu ñëw ci suñu yaay lan moo amoon. amul ku fi déglu rek ba ma daaneel. non non du la déglu parce que mënoo juum di continuer. déedéet. naam sama mbokkum lébu nga mais génnoo diggante Kajoor ak Bawal mënoo maa limal benn dëkk. Ah ndax dama la doon wax fa mu tàmbalee déy ba ca tàmbale ba. ginnaaw ba nu ne képp koo xam ne fekk nga ko muy fudd ay xer ñu ne fii la taal ak sooy di rëpp di fudd xer yi. Oh, fekkoo fa benn bu tàmm. Eh, eh, non père yaa ñuy solal nag di jox ay fudd xeer eh, yaa ñuy solal yaa ñuy solal yaa ñuy jaxase. yaa ñuy jaxase Aminata demal. voilà non non non say famille si doylu loolu rek nga fi wax di wax ay boo amul xaalis doo mun yar sa doom. Aminata Faye continué waay ñëpp amu ci kenn ku ma sa romb jam ñaajo. waaw yàlla na buñ ko loolu nga yaakaar. <laughs> c'est-à-dire. barke borom Touba Mbacke amu ci ki ci gën a sori mooy Sofia Diatta te kees la yem. ak mu lom kees xam nga ne dara amul. ak mu lom loolu def ci ki ci gën a sori diggante taaxi kaw kaw sara faal <laughs> madina faal kër diggante boobu la yem ah, dëgg la nekk ci biir ñoom yar nañ may wax lii leen di wax mënuñu koo dindi dama ne ab yar baax na lool taxaw na lool jafe na lool yomb na lool waaye ba ca gën a neex mooy nga mën sa bopp waaye nga doy soo mënee sa bopp day lu bari looy defar. xam nga xam dina yomba defaru. lu bari looy bañ. ci sa njaboot dinañ la ko bañle ba say soxna bañle la ko. léeg-léeg nga bañ loo xam ne si sa njaboot sa soxna génn taxaw dox ci diggante bi. yow ñi ànd ak yow ci loolu tamit. Ah, yow léeg-léeg nga bañ ci sa njaboot loo xam ne sa soxna jóg. dox ci diggante bi. daan ne gune yi ma mënaloo leen. Ah, mënaloo leen. non papa day fekk amoo parcelle man xam ngeen ne je suis seul contre tous. waaw d'accord ki mag ci plateau bi di kilifa bi. moo naan soowam ba perturbé di def désordre. waaw ndaxte yow kay ba xamoo lu ma naan soow rek nga gis. soow dafa nekk leneen sa biir soow rek nga gis. xamoo lu ma naan soow bi la lii mais ah, dama loo fi war a mën a naan mais da ngeen may bàyyi man li ma nekk dëgg la ci man. mais yow yaa fi wax doylu ba pare tey li ñu wax li yow. mënu ma wax ak yow ngay wax doylu ba pare mënu ma wax. Eh, bàyyi leen jàmm. mais mënu ma wax non nañ ko bàyyi. mais nag doylu ba pare tey li ñu wax yow xaalis mënu yaa bëgg wax mënu ma wax duma dem man lu ma wax ah, damay argumenté. argumenté woo mais quand même. s'il vous plaît s'il vous plaît on espère terminer. merci beaucoup. je peux terminer n'est-ce pas. d'accord termine xam nga su ma su ma su ma ñëwee on a on a on a vu. à maintes reprises ci suñuy télé ñu gis ay émissions yoo xamante ne ñi ñu ne occidentaux yi <laughs> ñu jël seeni doom ngir bëgg leen yar jël leen yóbbu leen fii ci Sénégal dans les coins les plus reculés euh, les plus euh, reculés pour que ñu dund fa métit ngir que suñu demee delloo seen dëkk ñu mën a am conscience ci ne comme bi ñu am du def ci ñoom éducation nañu xalaat fu ñu jógee fu metti mës nañ ko gis fii ñoom ñu jëlee seen doom indi ko Sénégal yóbbu leen ci dëkk yu sori ya ngir yar seen i doom ah, du jeex du xaaj est-ce que yaa ngi comprendre léegi kon en fait loolu noonu ndegam ñoom ci am koom ñu ci mën lan la lan la ñuy jàngal foofu mm-hmm. ba pare beneen bi beneen bi ok man may ma rek garaawul beneen bi xam nga ah, xam nga xam nga tey papa eh, micro merci. ah non waay. non je ne suis pas habitué. Oui, non parce que mënoo yor mënoo yor butéelu soow yor micro. non non je ne suis pas habitué. instant du sa kër da ngaa waaj da ngaa waaj sa kër a ngi ci kaw. mais doo bàyyi Aminata Paye wax ba pare. Ah. mënu ma ko lu tax doo ko bàyyi. li lii non bàyyi Aminata Paye wax. mais c'est moi la star. nee na ay star la star fan. ici gis-gis. Ah. waaw doo bàyyi Aminata Paye wax. non non c'est moi la star non non ben non non. lii ma koy wax. non c'est la star mënuñu ko gëm. oui li ma leen wax. star bu tànn mënu ma cee dellu ginnaaw dama ne ab yar baax na lool neex na lool mais kilifa gi nga xam ne dafay yar ci biir yar bi muy yar mën boppam baax na ci lool. papa yow dëgg la. su añ jotee nu añ su reer jotee nu reer su ndekki jotee nu ndekki du nu xaaraan ni kenn am yooyu suñ ko bëggee dinañ ko am. te toll nan jamono joo xam ne njaboot dina soxla loo xam ne fii actuellement dina wuti loo xam ne indi ko lu leer àddina ne. way juram joxu ko ko. dëgg la papa magam joxu ko ko baayam joxu ko ko. léegi papa papa. dañuy bàyyi Aminata mu continuer parce que Sidi daf ñu war a bégal eh, euh, nga dimbali ñu tuuti rek. non ñii. waaw <laughs> continuer. waaw euh, utal kii nga diw tànku euh, star bi. voilà ah. <laughs> man nga ut tuuti daxu ci soow mi nga diw tànku star bi. star bu tànk yu weex. Aminata ki la léegi. <laughs> liiral papa nag yow tamit. voilà ma continuer un xam nga li am solo. te Prospère wax ko mooy mag ñi bu njëkkoon li ñu yar ci seen doom ci nekkul si ne lu mu bëgg ñu defal ko ko wante ñu doylu ci muñ ci li nga xamante ne war nañ koo mën a ñàkk loolu la yare seen nañu def euh, comparaison entre doom yi nga xamante ne ñoom ñoo mag ci kër gi par rapport ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo mujjee juddu hmm. mais baay bu bëri baay yu bëri seeni doom teggin nañ leen jër te taxuleen a ñàkk seen baat dañ leen a teggil njël ndax lan la ñu doon tiitaroo man de dama am doom joo xamante ne dem na ba ja te bi mu jàngee dafa jàng ci ay conditions yu difficile. Mhm. tey nañu xool euh, ñi nga xamante ne ñoom la ñuy tiitaroo ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fi ëpp koom ci réew mi ñoom ñooy nit ñi ñu naw ñu gañe seen vie dignement fan la ñu dëkk ci ay dëkk yoo xamante ne buñ la waxee fan la ñu jóge je prends l'exemple tey am na koo xamante ne euh, nekk na njiitu réew bés ñu xas ko ne ko sa yaay da daan jaay gerte caaf du xas. ndax jaaf boobu yaayam daan jaay mu dund ci pauvreté boobu tey lan la ko conduire mu def ko qu'importe nan la mel wante tey nekk na doom joo xamante ne ku nekk sañoon nga jiite doom ju jur doom jiite réew mhm. donc mu xamal la ne gis nga pauvreté jur dafay def jom ci doom beneen bi moom mooy li am solo mooy sa ñàkk warulaa tere ñàkk sa baat waru laa tere doon kilifa waru laa tere nga jël responsabilité assurer sa njaboot. mais mais mais Ami ci benn point ak. père Maïgone Fall c'est que xaalis day andi désordre ci kër mu mu ñàkk ak mu bëri fa. non non Safia du ma ko nangu xëy na ci jamonoy tey bii. d'accord waaw mais ci jamonoy tey la ñuy waxtaanee. waaw mais mais man man xam nga lu tax. Oh. ba koo mënta régal mënoo koo réglé. waaw ah nee na ah Aïcha koo mënta pour la c'est grave jafe na lool pour nga reggal ko. waaw boo nee jafe na koo reggal jafe na lool pour nga reggal ko. mënuma laa reggal bëgg laa réglé. ah ah. <laughs> ah? meew bi lu si nekk koo mënta reggal mënoo koo réglé. maa wax loolu ubbi téléphone xam nga li wax ni lan la koo mënta reggal mënoo li muy wax nii xam nga lu mu indi tey. mooy tey doom joo xamante ne. dem na ba xam ne koom moo yor baat ci biir kër gi. mu ñëw di yor kër gi def def ci kër gi daal di xañ baayam baat. Mhm. mooy tey li ñuy wax naan tey soo yoree njëlli ci kër gi man jur bi dootuma fi amati baat si say waaw laay wéy te yow doom nga parce que xamal na lan ndax lan da nga jël doom jooju koom-koomam tax nga yéegal ko ci niveau boo xamante ne yow yaay kilifam wàcc nga sa kilifteef parce que kee moo yor koom bi nga jël koom bi def ko à la place de kilifteef loolu mooy njumte bi njëkk lan mooy échec gu baay mooy baay bi nga xamante ne dafay toog ci biir këram naan damay xëy di uti loo am damay bàyyi ba su ma wàccee seen ndey na ñëw laaxaan ma wala mu wax ma li ngeen yendoo ci biir kër gi éducation c'est une affaire de tout loolu mooy dafa nekk loo xamante ne yéen ñaa gis nga gis nga pour indi ordre familial dans un premier temps xam nga pour lan la mooy ndey ji nekk ci kër gi nga teg ko fi mu yore la sa njaboot wan ko ne lii du sa rôle yow kese associé la ci yow ci li ñu war a dund ci biir kër gi mooy da ngay yar ma la communication bi Benoît di wax mais Benoît il faut une communication rigoureuse pour nga yar sa doom. d'accord xam nga non xam nga lu tax. xam nga lu tax doom bu nekk xam nga dañ lay wax ne la euh, du du euh, bu dee ak jur. du ku nekk benn yat mooy sàmm ab jur mais bu dee doom bu nekk yat bu nekk yat benn yat doom bu nekk ak yat ba koy sàmm am na ko